tant que coach ñu ngi wax ni Aliou Cissé dafa xaw a jagadi eh, loolu lan lay def ci joueurs yi. d' abord di ko souhaiter propre rétablissement parce que euh, Aliou moom su feebaree moom ñun ñëpp war a feebar parce que je pense que euh, comme ni ñu ko waxee actuellement gaal gi ñuy wax Sénégal moom moo ko yore di ko dawal donc ñun ñëpp dañ ko war a ñaanal wér-gu-yaram ak euh, cawarte bu mat sëkk. pour que mu mun a taxaw mu ñu téyel suñu suñu gaal gi mais je pense que comme ni ma xamee direction technique ak euh, fédération ils sont assez outillés am nañ ay médecins yu xarañ am nañ aussi encadrement technique bu xarañ parce que moom rek staflam am am na entraîneur gardien am na préparateur physique am na entraîneur adjoint am na aussi directeur technique am na aussi des entraîneurs yu jóge fii dem pour la supervision donc ñu ñëpp soo ko dajalee je pense que mun nañu bañ a wéet ci côté boobu daal te il faut incha allah dañ koy souhaiter rek euh, mu mu mun a taxawaat pour mun a redresser équipe am incha allah. match bi nga xamante ni ci kanam daanaka ay waxtu moo ci des Sénégal ban taxawaay la war a am ci match bi. moom jarul wax ju bëri parce que match de qualification la match de qualification moom dañ koy yenn saa yi comme ni ko gars yi di wax y des matchs qui se jouent mais y a des matchs qui se gagnent match tey bi ci la bokk. c'est résultat boo xam ni obligatoirement il faut moom am un et un perdant dañuy souhaiter nag mu nekk côté Sénégal te je pense que nous sommes assez matures et assez outillés ak vraiment xarañte bi mu gis ci quatre trois matchs yu ñu nii am na noo xam ni suñ ko demee parce que coupe du monde bi dafa nekk dafa dem dafa mel ni dafa nekk à l'envers les équipes ñu ci doon craindre ñu pratiquement éliminé nañ kuy wax football Allemagne moo tax ngay wax Allemagne les gens pensaient beaucoup de mais malheureusement gis nga leen deux coupe du monde ngi nii mënuñu dem euh, Espagne gis ngeen ni mu qualifié Brésil au bout de fil la ñëwee euh, nu mu tuddati euh, Argentine tamit ay difficultés même France bi gagné tey sax ñoom ñëpp yam yem donc ça veut que les places fii du via VIP réservé ñu amul benn lu ñu fa réservé l'équipe la plus engagé la plus déterminée moom mun na gagner match bi te incha allah yaakaar naa ni aujourd'hui le Sénégal mi ngi ci siège boobu. mais justement ñu doon seetaan léegi match France bi euh, ban ngay def ci waaw c'est euh, match boo xam ne ñoom dañ ko ambale euh, entame match bi parce que seetaan naa ko lépp mais soo xoolee dangay xam ni France du du match bu mu ñàkk kii seen defar Tunisie bi dafa leen yee tey parce que bi ñëwee dañ dugg rek ambale ko te loolu dafa am solo ci équipe c'est-à-dire tàmbali man ni may tooñee sama zone naa leen tàmbali bëreet. te ñoom France dañu tàmm dañu commencé rek nekk ci donc loolu moo leen indil finalité bi parce que aussi adversaire mun na di défendre parce que polonais yi ñoom loolu rek la ñu yaakaaroon ñoom ils étaient même préparés même pour ay tirs au but ça veut dire que ñoom ils étaient préparés pour la défensive te moi pour moi la meilleure façon de défendre c'est savoir comment défendre comment ngay défendre mooy ëpp solo te tey wane nañ ko donc euh, français yi bu yëngal nañ leen bougé nañ leen fin de partie bi dañ bàyyi ñu gagné nañ 3-1 France vraiment mérité na largement sa victoire d'aujourd'hui. la France de Gana Gueye kan ngay proposer mu remplacer ko tey. man moom mënu ma proposer kenn équipe moom. en tant non mënu ko parce que loolu la preuve loolu moo tax waruma mën a wax si classement jàmbur si classe parce que entraîneur la j'ai le respect et le droit je pense que l'encadrement technique ñoom yore seen vingt six joueurs non vous parlez de la l'absence de Gana ana absence Cheikhou Kouyaté sentiruñ ko donc ça veut que c'est une équipe Aliou keroog déglu na en conférence de presse te li ñu absence parce que quand tu perds ton leader technique muy Sadio Mané ñu dem nit ñi personne ñuy croyé mais gis nga équipe mi ngi joué ak sa façon donc ça veut dire que ñoom à l'interne ils ont fait un régime boo xam ni dépendre ñu si ay individualité Sénégal soo la xoolee ñu joué c'est dans le collectif le encadrement technique bi liggéey te loolu aujourd'hui moom mooy les résultats d'aujourd'hui parce que je donne des exemples récents Regarde un peu la CAN, ce qui s'est passé. Le premier match, on avait 16 joueurs. Deuxième match, nous avons 18 joueurs. Troisième match, nous avons 20 joueurs. Nous avons une équipe qui est du dem du dem. Nous avons maté, nous avons parce qu'il y avait les cas Covid. Final, nous avons gagné. Donc ça veut dire que l'encadrement technique, nous avons collectif la ñuy liggéey c'est-à-dire liggéeyuñu comme je donne un exemple comme Pologne yi nga xam ni benn dañ jël lépp wéeran ko seen Ioaneski la si ça ne marche pas day crever Sénégal nag moom bon ils sont assez outillés et assez matures pour am benn taxawaay bi te ñu ngi koy wane ci ñaari compétition majeures yi ñu jóge mooy coupe d'Afrique bi ak coupe du monde mi ñu fii daane waxtaan bi xam naa su ma fiy jógee te laaju ma ko dañ ma wax lu tax laaju ma la ko mooy ñu bëri dañuy gis ni Pape euh, warul woon dem Tottenham waroon na toog France ba si kanam yow en tant que coach lan nga si tontu. loolu mënu ma si tontu parce que di moins parce que Pape dama bëgg rek ngeen wan ma si monde bi ci monde bi laa jour bu Tottenham di proposer di ko proposer en contrat de cinq ans ñu ne ko bul dem exemple laa la jox gisuma ko c'est un joueur qui appartenait à la FC met Tottenham ñoom Metz dama fa def Tottenham ñoo déplacé wu ñëwal seen bopp ba gis ko léegi nag dina jouer du jouer c'est à de voir mais dama bëgg rek ngeen wax kan ngeen gis à sonnage Tottenham taxaw ak un contrat de cinq ans mu leeral nit ñi sur un projet lañ bëgg a liggéey ak moom non nga naan ko bul dem man loolu man de fekke wu ma ko en tant que entraîneur. d'ailleurs sax Conte loolu wax mu ne daf ko placé ci espoir yi maanaam dafa dafa ko boole ci yaakaaru équipe bi ëllëg. waaw loolu ñoom du Conte sax parce que moom moo fa jiitu Conte. parce que moom en fait il a été recruté bien avant Conte di fa ñëw. Conte bi mu ñëwee dafa ne nañ ko ko bàyyil mu xool bi mu ko gisalee boppam moo ni da ko fay bàyyi mais c'est c'est à lui de prouver ses qualités wane boppam wane yaramam pour mun a dem parce que je sais foofu tam mun na mun na nekk feneen mais dama bëgg rek nga ñu xam ni le choix de Tottenham du man du moom Tottenham ñoo ko gisal seen bëggal ko ñëw ne dañ koy jël man fii ba fii fii vingt vingt fois su Tottenham ñëwee di ma woo vingt fois dama koy bàyyi mu dem parce football xam naa ko connais l'environnement aujourd'hui tu ne peux pas refuser à Tottenham de te prendre un jeune joueur nga ne ko du fa dem surtout ñu koy def la un contrat d'une durée de cinq ans nga bëgg faa nekk naa leen non c'est-à-dire loolu moom vraiment comme ni ko olof yi di wax bu yàqu la quoi waaw. mais am na équipe yu bëgg ñu ñu prêter leen ko en fait ñu abal leen waaw loolu xam nga yow sa maye bi tey su ma ko di abal wala doo abal. mais nga ko conseil wala sinon. non man moom ma ko conseil parce que du moment déteniruma pouvoir pour wax ko ko demal fii wala demal fële équipe bi ñooy xool lan moo euh, lan lañ moo baax si moom ak lan lañ parce que su su leen arrangé wuloon duñ ko jël suñ ko jëlee téye ko fa xam nañ tax ñu bàyyi ko fa ñun tubaab yi am na loo xam ne tamit nañ ko wax te dee nag ñoom am na lu ñu xam ñun xamuñu ko am na lu ñu gis ñun gisuñu ko parce ñoom ils tous les moyens pour détecter pour xoolal seen bopp on je me rends daaw exemple am na benn club bu ma invité woon France bi ma demee mais ils m'ont fait des vidéos man sax dama yéemu ay vidéo match yoo xam ni génération foot bii ko doon fubale dañ ko ay match équipe nationale yëpp lañ sende dagg ko man ñun outils yooyu amuñu ko ñoom suñ ko amee ça veut dire que ñoom duñu dinañ du ma ne dinañ juum de mais li ñu juum bëriwul donc. Euh, kañ nga ko gëj non chaque jour moom amul jour bu ma dul toog te du ma ko dégg yenn saa yi man maa koy bàyyi parce que bugguma di ko sonal mais les veilles de match souvent les après ces matchs dinaay waxtaan moom pour xaw ko encourager motiver ko quoi ci li muy def. merci beaucoup score bi lay joxe moom damaa tiit. mënu ma wax score man nga damay ñaan ñaan yàlla rek ñu yàlla may ñu ndam. mais tiito ndam tiit moom ku ñëpp tiit. ñoom ah, ah, ñun tamit. nañ xam ni ñi ngay wax ni championnat premier ligue lañu ñuy joué mais ñun tam suñu joueur fan la ñuy joué Kalidou Koulibaly fan lay joué eh, nu mu tëddee Edouard Mendy Gana Gueye Sadio ñoom ñëpp yaa tey vraiment Elimane Ndiaye Famaris Diédhiou Ismaïla Sarr Pape Matar Sarr ñoom ñëpp Angleterre la ñuy joué donc match yi ni ko tubaab waxee rek match premier ligue la rek waaw l'équipe la plus engagée la plus déterminée mooy gagné tey incha allah je pense que le Sénégal peut gagner incha allah merci non di leen souhaiter di leen encourager di leen ñaanal seen télé bi yokk rek yokk te yëg ko quoi voilà merci. merci beaucoup Atekh ça a été un plaisir de vous servir euh, la ñu nekk comme ngeen ko gisee monsieur Sidar Sarr entraîneur Sonacos doon joxe xalaatam ci mat Sénégal bi mais également di joxe xalaatam si Pape Matar Sarr bi di doomam merci beaucoup jaajëf.